jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaw giñ leen nuyo jaajëfal leen bu baax a baax jamono gi ñu fas am entretien ak ki nga xam ne moo di euh, Fou Malade doon rappeur waaye aussi bokk si euh, mouvement bi ñu mën a tuddee Y'en a marre Fou Malade ginnaaw gi leen nuyo jaajëfal la mbégte la ñu am nga ñuy dalal sa kër ngir ñu waxtaanee actualité ñu bàyyi la wi nga nuyanteeg ñoom. maa ngi leen di nuyu di leen sant euh, di féliciter télé bu baax bi ci liggéey bu. am solo bi muy def donte télé bu bees la mais mu ngi def liggéey bu am solo di joxe ay information yu wérte wóor loolu yàpp naa ni fi désinformation toll fii ci Sénégal télé yu mel noonu dafay am solo waaw jërëjëf dañ lay jaajëfal baax a baax mais aussi bu ñu waxee Fou Malade wax li nga xam ne moo di wàllum détenu politique yi ñu gis sa jamono gi nga am liggéey bu am solo yow ña nga àndal moom ngeen di def rawatina euh, les parent ñi nga xam ne euh, seen i doom wala seen i njaboot dañoo nekk si kaso yi lan moo waral nga jël euh, sol sa dàll dem si parents yi. waaw man d'abord liggéey bi nga xamante ne moom moo moom lay def ci kaso yi bien avant may bokk. mouvement Y'en a marre loolu ñu ko en 2005 liguey Bobu, doom ñu koy def parce que dañ jàpp ni euh, prisonniers yi dañu am àq ak yelleef àq ak yelleef Bobu aussi dañ ko wara a respecter ñu war len baye xel ñu tàmbale liguey bobu difa fa amale ay activités yu bëree bëri donc saa su ne ñuy euh ñi ñu tëj kasso ci yenn situation lañ nekk ndax liñ leen tëjee yoon la ñu xool aussi ndax ñun mën nañ ci dara buñ ci mënee dara fexe dox ci ay tànk ba fexe nu ñu ñibbee seen kër ñi nga xamante ne aussi dañuy génn kaso am jafe-jafe pour ñu euh, pour delluwaat ci biir société bi ñu fexe wutal leen ay wut ay pexe yoo xamante ne dinañu leen indiwaat delloo delloosiwaat leen ba ñu mën a Euh, jotaat ak société bi mën mën a bokkaat bu baax a baax a baax donc euh, euh, particulièrement nag année bi waaw bi ñu commencé jàpp ñenn ñi ñu mel ñoom nit dof ñoom Karim ñoom Cheikh Oumar Diagne ñoom Diomaye Faye ñoom ñoom Tidiane Oumar ñu di ko woowee Sertige ñoom Fa Faala Faala Fleur Ndeye faatu Fall Amidia euh, euh, Khadija Diallo ñooñu ñep effectivement euh, semaine bu jot depuis maintenant depuis maintenant euh, 7 mois semaine bu jot dina tan ben détenu wala ñaar yo xamantene dama len di séti muy kaso Rebeuss di euh, Cap Manuel wala di Sebi Khotane wala aussi foo xamante ne euh, man mënuma fa egg wala au ma jot dinaa yebal ay nit effectivement ñu dem seeti nit ñi xool situation yi garder aussi une certaine relation avec les directeurs de prison ak administration pénitentiaire pour mën a am information bu wër te wër parce que bëri na manipulation trop euh, am na jamono nit ñi souvent dinañu wax ay chiffres yoo xamante boo demee sur le terrain nga dem gëstu ko chiffre yooyu dafay waroo ak li nga xamante ne moom moo am donc nag li waral may jóg di seeti euh, ñoom nit dof ñoom Karim mooy d'abord dañu bokk mouvement hip hop ñoo bokk liggéey bi ñuy def parce que bi ñu jàppee waa impôt waa waa impôt jóg nañu bi ñu jàppee député député yi jóg nañu bi ñu jàppee sëriñ si sëriñ si jóg nañu donc bu ñu jàppee benn rappeur rappeur yi aussi dañu war a jóg Euh, ñu tambalé liggéey bobu depuis très longtemps organiser nañ fi sax marche ak ak ñi nga xamantene ñoy ñooy kilo famille ñom xali ak ñëpp ñi and ak nit dof pour effectivement organiser nañ marche pour euh, conférence la gars yi njëkkee après organiser marche pour faire effectivement laaj libération euh, ku melni artiste bu artiste nit dof def nañ ay affaire yu bëree bëri man nak particulièrement euh, moy lima wax sank rek damay dem ci damay dem tout le temps di leen setti di leen nempeeku di xool mm-hmm. situation yi nekk en relation avec leurs avocats mm-hmm. simplement pour faire évoluer la situation. Ah, euh, dañuy ñëw par rapport rek ci nombre bi ñu wax ne moom la ñu tegum d'après les informations plus de mille euh, loolee aussi yan leeral nga ci mën a andi beneen bi mooy ndax Sénégal waroon na toll foo xam ne ci. d'après les informations ñu bari nee na ñooñu ay détenus politiques lañ ndax Sénégal waroon naa toll plus de 1000 personnes ñu tek leen loxo ñu bari japp né ci walum politique rek tax ñu japp leen. waaw des fois nga dégg nit ñi né la 2000 prisonniers wala 1500 cinq cent détenus politiques diggante nit yi ñu japp depuis le mois de mars 2021 ak ak jamono ji ñu toll nii. nit ñi ñu ngi extrapoler naan ay euh, nit ñi naan ay mille et quelque lañ mais ñun bi ñu parce que dañuy laaj nombre bi nous am c'est autour de 600 de 600 détenus de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations ñu ngi bàyyi ndànk-ndànk ñu ngi bàyyi ndànk-ndànk camp euh, prison wu jigéen ñi elles étaient au nombre de 12 bàyyi nañ ci sept mu des cinq ngi am information bi bima démé di Ndeye Fatou Fall Fleur ak Amidia bi nga ak aussi Khadija Diallo mom aussi euh, artiste la ay jamono mu ci euh, euh, amul amul pratiquement détenu ils étaient au nombre de 34 après aussi bàyyi nañ leen boo demee ci yeneen ak yeneen am na ñu bëri ñoo xamante ne bàyyi nañ leen euh, bi ñu toogee nag wàllu définition détenu politique ñun dafa am nuñ ko jàppee am nu ko effectivement euh, ministre bi walla effectivement ñiy liggéey ci justice ñenn ñi euh, te nekk ci gouvernement bi jàppee ko keroog ministre bi ci daje bi ñu am ak moom ak rapport yu bëree bëri

fofu dañuy xool ndax euh, lañ wax amul personnellement est-ce relation ak ñi nga xamante ñoo def yi di ak donc effectivement ñu instruction pour ouvrir une information judiciaire mais mun nañ effectivement que la situation depuis que le président Macky Sall est là la situation en termes d'arrestation euh, de personnes qui s'expriment sur des questions politiques etc. cetera euh, loolu jàpp nañ ne dafa qui te fait warul parce que baaxul ci démocratie euh, parce que nit ni fait deux dëkk la bo fait de dañuy démocratie dañuy liberté d'expression te loolu dafa mel ni qui dellu fait loolu nak bu demee bay am suñu taxaway moy sam lolu parce que liberté d'expression wax sa xalaat baxna ci réew parce que fay éviter réew mi tak parce que nit ñi buñu mënatul wax sen xalaat rek dañuy jëfëndiko sen doole jëfan top sen xol baña andati ak sen xel mom motax tax dañu war a nit ñi effectivement ñuy exprimer wu mais exprimer wu aussi ça ne veut pas dire n'importe quoi nit ñi ñu taxaw wax xamantene euh da fay euh, wo nit ñi ci lo xamantene da fay dugal réew mi ci dafay dugal réew mi ci ay situation yo xamantene parce que bo demee bay wax am ñu lay déglu am plus de mille personnes qui te suivent am nga nek leader d'opinion am na lo xamantene effectivement bokoy wax war nga ko xolaat war nga ko càmbar bu baax baax pour que effectivement euh baña euh baña créer yenn situation yi. bari na ñu bëri ñoo xam nañ leen loxo. ñoom la ñu wax ñeneen ñi fare si yeneen kan wax nañ ko mais fekku leen si dara ñu bëri ne réew mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey beneen bi mooy bëri na ñoo xam ne tegoon nañ leen loxo jamono gi bàyyi nañ leen te àtteew ñu leen te tee nañ fa lu mat 6 mois ndax loole wonewul ne suñu état wala tey si wàllum yoon euh, dafa am maanaam dafa yolom waaw non kumba am ndey ak kumba amul ndey moom dafa am bu baax a baax fii si réew mi kenn mënul wax ni que justice la bu tëddee njaaxaanaa yi mën nañ jàpp ni effectivement ñi fare ci euh, nguur bëri na ay nit yu fare ci nguur yu fi wax ay mbir yoo xamante ne caabi waroon na leen féete ginnaaw te dara fekku leen ci ñeneen ñi nga xamante ne dañu féete ci kuje gi walla féete ci société civile wax lu mel noonu walla lu gën a lu gën a ñàkk a graaw li ñi féete ci nguur wax ñoom ñu jàpp leen yóbbu leen kaso donc jàpp naa ni bu demee noonu rek mooy justice tëddeewul njaaxaanaay te justice taxawaayam mooy dafa war a nekk taxawaayu yemale taxawaayu yoonal parce que yoonu taxawaayu yoon yoonal kese la du leneen yoonal mooy di doxal yoon yamale ci ñëpp yemale ci sàmb yamale ci demb yemale ci Moussa yemale ci Pape yemale ci Fati yemale ci Aïda donc loolu euh, lu am solo la bu amul solo rek dafay tax effectivement dafay jur Euh, dafay jur xolu fippu dafay indi situation wu fippu ci xolu nit ñi moo tax su boobaa bu yàggee euh, loolu mooy dem ba sax indi guerre civile parce que nit ñi dañ naan finalement comme que su ma waxee damay dem kaso comme que mënatuma wax man damay jëfandikoo ay ngànnaay comme que man sama gémmiñ moo nekkoon sama ngànnaay te tëj nañ ko ñaw nañ sama gémmiñ ba ba su ma waxee kenn dootuma dégg wala su ma waxee dañ may yóbbu kaso finalement man damay wut yeneen jumtuwaay yu ma waxee moi, waxe doole waxe doole nag moy euh, moy top sa xol bo meree dem tal wala jël dem bo et cetera et cetera té lolu aussi baxul parce que bu démé ba mu après mën li nga ne ci mu euh, euh, fi am donc war nañu liggéeyaat bu baax a baax ñi war ñi di ay juge di ay procureur et cetera et cetera war nañu war s'en jël responsabilité war nañu effectivement euh, jël seen indépendance war nañu am ins war nañu am personnalité boo xamante ne effectivement politique du leen instrumentaliser parce que justice mooy ndëgërlaayu de démocratie justice mooy ndëgërlaayu de euh, euh, développement justice mooy wéeruwaayu réew mu bëgg a jëm ci kanam bu justice naax saaya rek euh, gilaawaal yi dafay yomb musiba dafay yomb ay euh, situation situation instabilité dafay yomb donc en fait euh, moo société civile bi war na ci gëna défar taxawayam journalistes yi war ci gëna dëgeural sen taxaway citoyens également xamni aussi réew un pays ce n'est pas une jungle également dëkk du du du du du an du ndumbelaan du duñu ay rab nous sommes régis par des lois mën sa morom duma dañu war a def dañu war a am beneen taxawaay bu gën a wóor pour sàmm jàmm ji nga xamante ne moom la ñu euh, bu ñu xoolee ci visite yi sànq wax nga ko ku mel ni euh, Bassirou Diomaye Faye Falla Fleur ak euh, ki nga xam ne moo di Karim Xurum xaq wala Nit Dof dañu ñëwee ci le cas Fleur la moo tax benn nga dem seete ji ko beneen bi mooy Falla Fleur mi nga dem seete ji naam ñu bëri maintien rek la ñu xamoon si moom état d'esprit mam noo ko fekkee ca kaso ba. waaw bi ma demee fekk Falla Fleur déjà fekk naa ko euh, muy door a pare une perfusion maa ngi gis les traces de la per de, euh, de perfusion bi mu doon def gis naa ko ci loxo bi euh, ni ma doon déggee Falla Fleur ak ni ma ko gisee dama gis ni jigéen ju mën góor la gis ni jàmbaar dëgg laa jaakaar loolu biñu ñu lim ma njëkk laaj mooy anu Ousmane Sonko talul sax boppam mu ne ma mais yan lan yan démarche ngeen tàmbale di def pour effectivement Ousmane Sonko génn ma ne ko fi mu toll ni nit ñaa ngi waxtaan mu commencé wax xamal ma ni moom sax du militant pastif ne moom ne moom du militante pastif moom dafa jàpp ni rek réew mi dafa war dox ci dëgg dafa war a dox ci yoon te loolu la gis ci usmaan Sonko moo tax mu topp Ousmane Sonko moo tax effectivement muy xeex li muy xeex mu ne moom jëmmam ji amul solo mu ne moom jëmmam jëmmam ji amul solo mu ne moom Ousmane Sonko génn sax moo ko gënal moom ci boppam mu génn ma déglu ko ba pare déglu ko ci xel déglu ko ak xel bu baax a baax ko xam ni aussi li muy. Euh, lu bëri ci li muy wax effectivement am na ci dëgg am na ci taxawaay bu dëggu am na ci taxawaay bu bu am solo ñu ngi ñu ngi toogoon waxtaan man ak moom ak Khadija Diallo ak ami ak ak ak Ami Dia mu nekk waxtaan bu am solo ma personnellement ma jàng ci ma jàng ci ma ma jàng ci ma jàng ci nit boo xam parce que gis naa ni mi ngi dëgër nekkul nekkul nit la bu bu bu bu waroowul ak li nga xamante ne moom la doon saalitul benn yoon saalitul taxawaayu ñàkk saalitu faala euh, jàngal na ma man personnellement gëm naa ni ci euh, nit la bu am ngëm-ngëm mais aussi waxtaan naa ak moom ci ci na ko xeex am na fu muy toll nit ñi dañu war a euh, dañu war a adapter seen stratégie ak li nga xamante ne jamono ji xamal ko waxtaan waxtaan ak moom partager ak moom sama expérience personnelle euh, ci nit boo xamante ne am naa taxawaay ci réew mi euh, ci euh, ci kuréel bi nga xamante ne mouvement Y'en la tudd ñu ngi ñu ngi ñu ngi am lu ñuy doxal ma ma wax ko sama xalaat am yu ma ko dénk effectivement ñu waxtaan bu baax a baax balaa loolu nag dafa fekk papam yónni ci ci man parce que nous Fleur ñoo dëkk mais géejawaay fleurs. cosaanam mais musuñu fleurs. ban ak mom musu moko xam après lay xam ni euh, Ndey Fall euh, sama benn xarit buma école bu qui est devenu un professeur d'anglais aujourd'hui euh, dans la région de Thiès qui s'appelle Souleymane Pam Souleymane Pam mo ñeu Sulaiman Souleymane Pam ne ma malal dem euh, xaar ma paas la et Fallou Fleur moom moo ma inspiré sax pour ma dem seeti Fallou Fleur quoi donc euh, bi ma demee seeti Fallou effectivement j'en ai profité pour voir Ami Dia j'en ai profité pour euh, pour voir Khadija Diallo ay ñoom Pascaline parce que bi may ñëw foofu Pascaline aussi c'est une militante jour boobu la génn moom donc mu nekk affaire bu bu bu am solo papam aussi bi ma jógee foofu rendre naa ko compte euh, waxoon na ko dinañ gisé ak ministre de la justice waxtan nañ waxtan bu am solo donc faala faala faala jambar euh, euh, euh sen condition jigéen ci ca ba. waaw waaw ñu ngi xam nga kaso nak euh li nit ñi di wax ak li fa am des fois wuute na man depuis 2005 ma ngi à jouir ci prison yi amna lu bari lu évoluer amna lu bëri lo xamantene ne changé na fa euh, boo ñëwee déjà direct directeur yi walla directrices yi walla ñi fa nek chef de courrier ak ñëpp ñi fay liggéeyee inspecteur yi dinañ la accueillir avec euh, avec respect booy seet nit dinañ la ko yombalal léeg-léeg sax visite bi war yam 10 minutes wala 5 minutes ñu bàyyi la nga waxtaan ba sa xol sedd léeg-léeg sax ñu aménager la ñom seeni bureau ngeen tok nga am visite contact nga am visite contact ak prisonniers yi waxtaan ak ñoom donc état d'esprit bi baax na donc euh, et puis il y a une très bonne relation entre beaucoup de détenus et les gardes pénitentiaires parce que gardes pénitentiaires yi ñoom dañ leen dénk rek pour ñu tëj donc sun du ñoom ñoo indi foofu gars yi ñoom c'est une maison boo xamante ne bu justice defee li muy def ba pare da leen di dénk nit ki ñoom ñu war ko toppatoo war ko sàmm war ko xool respecter ay àqam ak ay yelleefam Euh, ci noonu aussi seeti woon naa jomaa Diomaye Bassirou waaw bassiru Bassirou Diomaye euh, seeti woon naa ko aussi ñu waxtaan waxtaan bu am solo euh, ma gis ni mu ngi moom it saalitul benn yoon et important de le dire saalitul benn yoon mu ngi continuer di di di gëm li mu gëm mu ngi continuer di bëgg Sénégal et important de le dire mu ngi continuer di bëgg Sénégal ñooñ ñëpp nak mais ñun li tax ñuy dem di len séti c'est simplement pour xam ci ban situation lañ nek ba paré wut waxtaan ak ñom ci wut ay pexé yo xamante ne dañ war a génn parce que nit ki il y a te am na mais amna lo loo xamante ñeneen ñee ko mom man dama japp ni ak ñun waa Y'en ñun mouvement hip hop bi dañ japp ni bu ñu jàppee ku melni ni nit dof wala ñu japp ku melni jomaay lu jomaay mom mais am na loo xamante ne ñun ñoo ko moom te mënuñu ko teree dox. le cas de fay waxtaan ngeen ci Pastef euh, bi nga xam ne dañ ko dissoudre rawatina euh, seen leader bi di Ousmane Sonko nga xam ne dañ ko arrêté. waaw waxtaan nañ ci waxtaan nañ globalement ci Sénégal ni muy doxee waxtaan ci euh, dissolution Pastef muy loo xamante ne mu ngi koy naqarlu di ko ñaawlu waxtaan ci démocratie Sénégal ni muy. ni muy soxé waxtaan ci ay mbir yu donc euh, loolu aussi waxtaan bu sore sori ñu waxtaan waxtaan bu sore sori ñu euh, euh, am yu bëri mais ngay conviction bi nit am li ngay conviction bi nit am pas-pas bi mu pour réew seulement xëy na moom ni mu koy déggee ak ni ko ñi mu jàkkaar lool ñi mu jàkkaar lool di xeex ak ñoom ak niñ koy déggee du benn donc waxtaan nañ waxtaan bu am solo ay parce que ay jomaay ñun ñëpp ay génération lañ ñoo nekkandoo woon université ñoo euh, ay ñoo toll nous somme de la même génération donc en fait très une euh, génération boobu yëpp ñoo partagé ay convictions ñi ñi gis ni dañu wara bok ci parti politique ñi créer ay mouvements citoyens. mais pas-pas bi ak ngëm-ngëm bi benn la pour Sénégal boo xamante ne dafay jëm. bu ñu waxee euh, nit dof nekk ab rappeur euh, booba tey aussi ngeen porté woon combat am lu bëri def ngeen ko euh, ngeen ne seet ji ngeen ko bi ngeen bi ngeen jàkkaarloo nit dof ndax nekkul ne gisoo leen benn échec boo xam ne def ngeen ko ndaxte peut-être saaga waxoon na ay wax yu ñaaw génn baluwaat ñu bëri ne loolee war ko woon fekk ci kaso booba tey yéen a ngi doon mën ne benn combat mais ba tey moo ngi woon si kaso bi ndax le cas

nit dof ñi mu bëgg nañ nit dof génn c'est-à-dire ñi am ñi nga xamante ne rappeurs yu yi nga xamante ne yu mag yu euh, ancien rappeurs yeeg old school beeg new school beeg middle school bi ñëpp ñoo dajaloo manko góor ñeeg jigéen ñi pour effectivement nekk ci ñii di ko xeex ci réseau sociaux yi ñi organiser ay manif ñii effectivement dem di ko seeti donc ñu continuer ci loolu léegi nag xeex stratégie la defé li soti wul nga def la wul da ngay jëm lenen motax effectivement après ci euh, xalaatu Gaston Gaston bi mu jógee France man personnellement daf ma woné mo, bugon na euh, mu man wo Mass Black Diamond woo euh, Rex Alien Zik wo Ndongo di ñu dajé kërëm bi ñu waxtané mu né man buma ma mbiru nit dof mu ngi bëgg a dama bugon ñu

fekk na Simon tàmbale na lijjanti benn rendez-vous boo xamante ne euh, ci ndimbalu Moundiaye Cissé bu ONG 3D pour ñu mën a gisee pour ñu mën a gisee que pour ñu mën a gisee ministre bi constituer une délé une délégation de rappeurs pour wax ak ministre bi donc ñu dajale fekk na aussi de l'autre côté Ngaaka Blindé commencé na dajale ay artistes aussi pour mën a euh, dox dara ci wàllu nit Nitdoff

ñu seeti Karim Xurum Xaq waxtaan ak ñoom dem ministre. est-ce que nous sommes woon nañ loolu. dañ leen ne ñun sommes seen waaw wala seen déet dañu am cër si yéen te cër dañ par la force parce que bi et puis entre-temps depuis plus de 20 ans on se connaît y a des relations amicales suñuy waajur xamante nañ suñuy doom xamante nañ suñuy nijaay xamante nañ donc am na loo ne ngeen ko ngeen bañ ko. Nous laaju ñu leen seen avis dañ leen dañu pour yëgal leen ni lii dinañ ko effectivement ñoom aussi ñu dégguñu bu et à la suite de ça nous sommes allés voir l'autorité avec qui nous avons discuté et l'autorité bi aussi rafetlu démarche bi démarche de solidarité la démarche bu responsable la démarche également bu pacifique

jéem a dox ay jéego yoo xamante ne effectivement mbir mi dinañ fexe mu am saafara. mais foo ma laat bu nekkoon ne dañu am justice boo xam ne dafa indépendant bu ñu waxee journaliste bu ñu waxee autant pour moi rappeur engagé la day bind ay test day wax injustice wala li nga xam ne moom la tegu gis nañ combat yi fi jaar yëpp tey ndax dans un état de droit waroon nañ toll foo xam ne les rappeurs dañuy dem ci ministre de la justice ne ko. am na kenn ñenn ñoo xam ne kat dañoo bokk si ñun dañ leen teg loxo suñu si ñoon ñu bàyyi leen ndax loolu rek wonewul aussi ne réew mi di Sénégal euh, justice amatu fi. waaw xam nga rappeur yi du ñu ay golo duñu ay nag du ñu ay fas du ñu ay mbaam ay nit lañu li nit di def rek la rappeur di def. oui oui oui oui mais li nit di def rek la rappeur di def rappeur dafay dem juma dafay dem takki jabar. fay lek fonde xam nga rappeurs yi duñu ay nit yu ñu catégoriser né kani ñi rappeurs yi comme que dañu engagé kani la ñuy agné du deug yi fonde la ñuy lekk ceebu ma laax hmm di sol solu ñu ay xobu banana sont pas c'est des personnes comme tout le monde donc li nit ñi di def rek xam nga yi ñu ngi won Touba te bu tiwaawoon jotee dañuy dem tiwaawoon donc rapport yi yëfu nit rek la ñuy def te ñaan njekk dafa bokk ci yëfu nit ñaan njekk bu fekkee moo fi nekk parce que man personnellement li ma intéressé c'est la libération de ces gens-là pour que ñu dellu seen kër toog seen njaboot am na ñoo xamante ne nag Facebook rek dañu ay ñu ngi ci Facebook bi naan noo kii yónni wu leen lii lara yi na naa loolu waxi waxi gune la mais mhm. foog ne mbir mi tey la tàmbale ci engagement même bu fekkee ci engagement da nga engagé engagement amul benn engagement bu tere nit waxtaan te effectivement li nga wax dëgg la justice sooxe na Sénégal justice bu sooxewul woon du ñu toll ci situation bii nii bu ñu jàppee nit bu fekkee dañu estimer ni te yoon rek tax ñu wax yoon rek te wax dëgg rek ñoom nit dof waruñu woon def plus de six mois dans les prisons parce que la durée légale de la détention préventive en matière délictuelle warul weesu six mois la durée de la détention préventive en matière criminelle warul weesu deux ans te xeex boobu aussi ñoom nit dof taxul ñu le ko tàmbale nañ ko depuis li ma la wax sànq depuis 2005 ñu ngi xeex contre les longues détentions préventives ñu ngi xeex pour le respect des droits des détenus donc liggéey boobu ñu ngi koy def depuis très longtemps mouvement hip hop nag nekk mouvement boo xamante ne rappeurs yi dans leur majorité dañuy war a dañuy faral di wax euh, des faits sociaux nous waral dañuy l'injustice. di dénoncer injustice jóguñu ci une nouvelle génération de rappeurs qui avons occupé les devants de la scène avons Malal ci kanam en tant que rappeur Gaston nekkatul ci kanam en tant rappeur rappeur di nekkatul ci kanam en tank rappeur ñoom Dip ñoom Ngaaka Blindé ñoo yor lenge yi ñoom nag aussi euh, ñoom aussi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan donc ku ci nekk aussi yaa ngi naqarlu euh, li xew et puis tu le di avec tes propres mots donc euh, jàpp naa ni liggéey boobu ñu ngi koy continuer mais di fàttali nii rek rappeurs yi dëkku ñu ndumbelaan rappeurs yi Sénégal lañ dëkk mais euh, bon si loolu da ngeen doon def ji lu baax majeure partie bi wala ñenn ñi ne ah ñoom ñoo ñee nekkatul ñi nga xam ne ñoo porte ji combat bi ñu bëri am foo xam ne foofu lañ leen ni dëkkalee euh, loolu aussi ban jàngat ngeen si ndaxte ñu bëri ñoo ngeen di joxoñ baaraamu tuuba nee na ñii ñii ñii moom taxatul ñu naan ay rapport ñii taxatul ñu ñaan ñooy xeexal askan wi. en fait kan moo naan kan moo am légitimité wu ne diw rappeur la diw du rappeur ñun bi ñuy rap tàgguwuñ leen de. du rap, rab du seeni bay du seeni yaay ñu ne ay ca rabal leen ñu ñun ñoo yeewu rab ba tollu fi mu ci tollu ba aussi am ci daraja joo xamante ne bu ñu waxee président dañ la bëgg a gis président daf ñuy gis bu ñu waxee ministre dañ la bëgg gis ministre dañ ñuy gis am na loo xamante nag xam nga waxu wa xam nga mbedd moom internet mbedd la lu neex wax lu mais ginnaaw wax lu la la réalité des choses quoi réalité des choses bobu xam nga ñom dañu ne nit ñi dañu dem ministre mais dafa am lu depuis six mois depuis plus de six mois ñu ngi jaabante ci kasso yi di séti gaay di famille bu ñu ndax bu ñu feebaree dinañ am garab ñu ngi dem ci kaso yi di xool ndax defu defu ñu leen lu leen naqari ñu ngi leen di toppatoo di leen xool te loolu defuñu ko pour le plaisir des gens dañ ko def parce que parce que loolu mooy su war a nekk suñu taxawaay. le cas de Abdou Karim Gueye Xurum ak Nit Dof yaakaar ngeen ni dans peu de temps euh, dinañ leen bàyyi. waaw loolu du yàgg dara incha allah. amna ci njort bu rafet jàpp naa ni léegi rek incha allah. Hmm. mënuma la jox une date très précise mais jàpp naa ni léegi léegi incha allah. dañuy dem ci actualité leneen loo xam ne tey mën nañu wax ne euh, F24 fas yéene woon def li nga xam ne moo di manifestation ñu mën a wax bii mooy énième interdiction. Euh, ñu bëri ne tey euh, loolee jot na ñu wax ko ndaxte dans un état de droit ñi bëgg a manifester dañuy manifester ndax tey aussi loolu waroon nañ see tollu ay ay kuréel la nekk ci réew mi jàpp ne justice bi ni muy doxee wala tey ah maanaam dëkk bi ni muy doxee jaarul yoon ñoom ñooñee ñu ne dañuy wane seen naqarum xol ñu ne leen duñ ko fi defee. waaw en fait dans un état de droit mobilisation citoyenne marche lu war a am la parce que dafay suuxat démocratie loolu lu war a am la euh, tere bi. Euh, du du lo la man ñuy ñuy citoyen bu mobiliser mais nous aussi nous euh, am nañu seeni raison yo nous mom lañu tek pour téré ko am sax effectivement F24 Pastef est un parti dissous mais toujours membre de F24 lolu mën constituer une raison de l'interdiction de la manifestation mais dans une démocratie quand les gens veulent s'exprimer il faut les laisser s'exprimer njiitu réew Macky Sall ne bokkatul élection yi ñew dafa wara a candidat mais bob ak tay mën nañ wax ne wër yee ngi dem gaay yi bob ak tay tànnul ñen ñi aussi di poser point d'interrogation ne d'après li njiitu réew mi bëgg dafa bëgg poussat 2 euh, ans lan mo tax nga euh, yow sa jàngat lan mo tax nga yaakaar ne njiitum réew mi bob ak tay tànnagul li nga xamne modi ka manam candidat benen bi ndax Sénégal gi ñu tollu jotna ndax ndax war nañu manam pousse manam calendrier bi d'abord calendrier électoral bi dañ ko respecter parce que nous mi une ci situation de chaos de nid, de na d'instabilité grave boo xamante ne waruñu mun a dem vers élection euh, yaakaar ni les élections dans quoi perte warul tax également une motif un motif démocratique et responsable bon xamante ne war na un motif bu war élection deux ans su Boba, dafay installer waat réew mi rek ci situation bo xamantene da fay doy war li am mois de juin euh, ak li amone mois de mars lu ko raw mën naa am parce que su Boba, ça va faire accroître la colère et les gens peuvent même penser que effectivement que daf ñu bëgg daf ñu bëgg dafa bëgg continuer diriger dëkk bi après ces deux ans là mën na laajaat yenen deux ans etc etc et te su boba c'est il veut se maintenir simplement au pouvoir bon beneen affaire bi nga xamante ne euh, beneen affaire bi nga par rapport à son candidat euh, jàpp euh, personnellement c'est une question boo xamante moi personnellement qui ne m'intéresse pas trop waaw parce que c'est le candidat d'un parti c'est le parti qui doit décider maintenant quelque quel que soit le candidat choisi, ce candidat-là doit aller à la compétition. pareil, avec des élections inclusives, des, élections transparentes. il, nous faut des élections transparentes pour permettre aux citoyens de choisir. Parce qu'en réalité, quel que soit le candidat, pour moi, il faut aller aux élections. Pour moi, l'essentiel, c'est de tenir des élections avec toutes les personnes qui souhaitent participer aux élections. Pour moi, d'abord, il nous faut des élections inclusives et transparentes pour permettre, euh, pour permettre, pour permettre euh, à la démocratie de s'exprimer. Youssou Ndour benn bokk après 12 ans ñu dégg dit que réew mi Macky Sall mom momé néna na nekkatul candidat demb ñu dégg né démissionné na euh, benn bokk yakar ndax trop tard. waaw démissionné na parce que Youssou Ndour en fait il a toujours dit que c'est lui que c'est Macky qu'il soutient ci li ma ko yàgg dégg muy wax ah, avec son mouvement fekkee ma ci boole nit nag boo nee man Macky Sall soutenir Macky Sall nekkatul candidat je pense que boo quitté boo bàyyee nit ñi mun nañ ko comprendre boo bàyyee mais njiitum réew Macky Sall nee na bàyyiwul keneen ki nga xam ne moo nar doon candidat benn Bokk Yaakaar da koy moom moom mooy da koy xam nga Youssou Ndour musul engagé wul ne. Macky Sall contrat depuis son début d'engagement en 2012 avec Macky maintenant Macky part après 12 ans on peut bien comprendre comprendre le choix de Youssou de quitter la coalition parce qu'il l'avait fait pour soutenir Macky Sall D'après les informations ñen ñi ne Youssou Ndour mëna doon candidat élection yi ñëw en 2024 ndax mën nga yaakaar l'olé. waaw jémon na ko en 2012 bëggoon na nekk candidat mais ay signature ko manqué woon ku bëggoon nekk candidat 2012 mën nga ko bëgg a nekk en 2024 waaw. jërëjëf xam naa dañ lay jaajëfal naam ponk yi ñu doon waxtaanee bëri ni te am na yeneen ak yeneen yu ñu war a mën a waxtaanee kàddu gu mujj gi lan lay doon waaw kàddu gu mujj gi kàddu kàddu kàddu uh, dañu soxla jàmm ak dal ci Sénégal président de la République en premier am ci responsabilité société civile am ci responsabilité Journaliste, am ci responsabilité ci walu information bi ñuy joxe parce que information bu dëgguwul mën indi ay donc le journaliste a une responsabilité Ni def live Facebook TikTok aussi ils ont une responsabilité parce que tu t'adresses à une masse qui a un public qui forcément euh, n'a pas le même niveau que toi wax bal wah responsabilité la engagé nit ni war nga waxee ak sa àqulaay taala waroo wax lu la leer ni li ngay wax nii xam nga ni du dëgg te boo ko waxee mën na jaxase réew mi tu n'as pas le droit de le dire réew mi nag ñun ñëpp dañu am responsabilité sàmm ko parce que ñun dañu dañu jox réew moo xamante ne dañ fi fekk dara euh, lu baax di ko roy lu baax loolu ñuy roy dañ ko war a continuer di ko perpétuer pour que génération yi ñëwaat bu ñu bu ñu fekk réew mi ci ci fekk réew mi ci état bu très bien waruñu on doit pas léguer aux générations futures un pays délabré waruñu leen un pays balafré waruñu leen euh, jox réew moo xamante ne dafa am ay léget léget yi dañ koo war a saafara dañ koo war a dindi euh, li ëpp solo nag mooy. Euh, hmm, jàpp naa ni surtout ñiy xeex dama leen dama leen di woo ne leen xeex toujours booy xeex booy xeex da ngay adapter sa xeex ak contexte bi moo tax effectivement ñun aussi ñu taamu xeexe ni ñuy xeexe waaw taamu xeexe ni ñuy xeexe en attendant ñu ngi xaar suñu xarit Nit dof ñu ngi xaar suñu xarit euh, Karim Xurum Xaq ñu ngi xaar suñu xarit ñoom ndey Fatou Fall Euh, ñu ngi xaar euh, Amidia ñu ngi xaar euh, Khadija Diallo ñu ngi xaar Tidiane umar ja ñu ngi xaar bépp ndaw boo xamante ne yaa ngi ci kaso bi ñu ngi lay xaar pour que effectivement nga delluwaat sa kër.